benn crime la léegi ñu jëbb ko tëj ko bi ko tëjee nag depuis lors ça ça fait ko tëjee nag président Macky Sall bi mu jëlee pouvoir bi taxaw fépp défendre ko ne moom dañ ko tooñ ak wax wax xam nga la politique léegi nag ne génn ko biñ ko génnee nag dugal ko ci liste yi. en bonne posture sur la liste nationale avec la claire conscience qu'il sera député mhm. mu def ko député ànd bi neex ñu ñu ñu sëy bi neex lool ñu dem ba digg bi nag sëy bi tas ci lañ ko commencé waat créer ak problème bi mu opposé woo daal war na ne moom opposant la ñu demaat ba mel ni ñu ju ñu jaxasoo waat def seen dialogue organisé fexe ba xalifa dugg moom mu commencé dal ay Sonko Yewwi Askan Wi ku nekk donc ça veut dire foofu le président a réussi son sa stratégie de division de l'opposition quoi surtout l'opposition la plus radicale donc nekk ci loolu léegi nag ñu demaat bu moment bi ça c'est une question pourquoi attendre ce moment là pour re, re, refaire surface sur un dossier qui a duré douze ans donc ça peut être est-ce que dañ ko bëgg a vider carrément pour permettre à Barth d'être à l'aise ou bien dafa am luñ ci lu luñ ci jublu pour museler ko wala dara donc ça veut dire que en tout cas pour le moment Barth nee na dina def conférence de presse ci kanam. Mm-hmm. à 15 heures à 15 heures donc dinañu wax moom qu'est-ce que nan la gisee mbir mi mais ce qui est moom la bataille d'opinion est engagée à partir d'aujourd'hui et la bataille politique aussi est engagée parce que barte moom pour qui le connaît xam ne c'est un dur à cuire et xeexkat la quoi moom day raag ba naaw li xale yi doon. merci beaucoup euh, gis-gis nga par rapport à ça dossier Ndiaga Diouf euh, qui refait surface 12 ans après. waaw Cruzita déjà avant mi ñëw si dossier Barth Ndiaga Diouf boobu en fait tout à l'heure da nga posé question bi intéressant à Arama muy pour ce qui est en rapport avec la communication.

bu ñu waxantee dëgg normalement ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy pôle communication Pastef même bu fekkee tas nañ parti bi dañu naan la Pastef état d'esprit la donc am nañ ñoo xam ne ñoom ñooy gérer tout ce qui est la communication pourquoi pas ñu wàcc sur le terrain wala ñu dem dans les plateaux télévisés ñu def ay conférences de presse wax ñi nga xam ne ñoom ñooy seen militants yi ñu expliquer leen de manière explicite lan moo nekk ci dossier di début bu fekkee Sonko am na ay sens pour bokk ñoom ñoo koy def exprès di manipuler la population wala di manipuler l'opinion mais manipulation boobu mën na dem ba en un moment donné mën loo xam ne ñoom dañ xam seen bopp parce que bu ñu gëmloo askan bi wala ñi ne ñoom gëm nañu Sonko topp nañu Sonko ne Sonko moment ñu gis ne Sonko bokkul loolu mën na nekk lu fatal ci ñoom parce que xam nga ko mer rek nu muy révolté woo mën na fatal ci ñoom donc a wax li nga xam ne moom mooy seen partisan yi nekk ñu wax leen ko ñoom ñu xam de manière claire bu fekkee dañu am ay ay euh, euh, ah, je ne dirais pas bu fekkee dañu am yeneen stratégie stratégie A B ñu wax leen ko yeneen plan ñu wax leen ko mu clair mais on sait jamais nit ñi kenn xamul tey par exemple Sonko yi ba léegi nii nii nii nii ñu si baree baree bare gëm nañ ne Ousmane Sonko day bokk ci élection bi léegi ñooñu boo bàyyee ba dernier moment nga ne leen Sonko bokkut mën na mettre si yow. mën na indi beneen voilà mën nañu ay mën na indi beneen problème loolu laa si bëggoon a wax concernant l' affaire Barthélémy Diaz fet doyen retracé na histoire mais il faudra ñu def si attention si l'affaire Barthélémy Diaz Barth il est très futé en matière de politique parce que il fait partie de l'école socialisme Barth socialiste la dans l'âme xam nañ ne ànd na fekk Ousmane Tanor Dieng ànd na fekk politiciens yëpp donc Barth am na parcours politique quoi qu'on puisse dire nekkoon na fi jeunesse socialiste il était même le responsable am na benn parcours boo xam ne def na ko te Sénégal dañu doon am li xam ne moom mooy parfois suñu analyse politique dafay des mais bu fekkee am nañ benn analyse politique boo xam ne dañ koy def c'était pas gratuit le fait que Barth bu fekkee dialogue politique am na Sénégal dialogue politique bi passé mois de mai précurseurs yi mën naa ne barte la wala ñi nga xam ne moom moo tax dialogue ba mën naa ne Barth la ngeen yaakaar ne Barth dana organiser nii dialogue rek pour organiser dialogue Barth bu muy organiser dialogue bi en quelque sorte c'était pour son avenir il avait tout planifié Barth c'est un fait lu ne nga ko waxal mais mais politicien la parce que école bi fu mu jaar la ku xam ne parti socialiste ku xam parti démocratique sénégalais xam ne ñoom c'est des daal la am amoon nañ école politique ñu ngi ko tudd du parti boobu léegi déggatoo daanaka Sénégal école du parti APR amul école du parti Pastef ainsi de suite suite donc muy parti yi nga xam ne moom mooy parti bees mais Barth il a tout planifié parce que bi nga xamee ne moom nee na day dem ci dialogue politique bi gis nga ñi nga xam ne ñoom la àndaloon muy waaye yow askan lu ne wax nañ ko fi Bart nee nañ ko Bart traître la c'est ça nee nañ Bart traître la Bart tóob la Bart Macky la àndal lu ne Bart dégg na ko fi mais Bart conséquences yooyu yëpp xamoon na ko il avait mis tout ça en place te xamoon na lan moo ko siy fekk mais si on se rappelle dialogue politique boobu ba mu amee c'était pas uniquement pour que Macky Sall bañ a présenté pour sa candidature pour yeneen point point yu baree baree bare si la bokkoon le fait que fichier électoral bi disponible à temps si la bokkoon révision des articles L29 L30 si la bokkoon ak révision des articles L29 L30 boobu ngeen yaakaar ne kan la profito à Barth à Khalifa Sall à Karim Wade parce que si on se rappelle bien l'ancien code euh, l'ancien constitution mooy li bi fi njëkkoon nekk article L29 ak L30 bu fekkoon dañ la condamné. à une peine bu condamnation bi définitive comme par exemple le cas de parce que la condamnation n'est pas définitive mm. l'affaire Ndiaga Diouf Barth moo dugaloon interjeté appel pour ñu dem cour suprême mais bu fekkoon si code boobu lañ nekk ba léegi ancien code mooy les articles L29 ak demee cour suprême bu fekkee condamné Barth dañ ko condamné cette fois ci li nga xam ne moom mooy ses mandats électifs yëpp muy mairie de Dakar muy député Barth daf koy perte bi ñu defee la révision des articles L29 L30 daf ne képp koo xam ne léegi dañ la condamné même bu fekkee la condamnation est définitive fekk purgé nga sa peine ba pare condamnation boobu mënul yàq dara si sa poste yi nga xam ne yor nga ko mais si la condam bu fekkee nag peine bi tëddagoo ko day yàq sa mais on se rappelle bien Barth il a déjà purgé les 6 mois. Mm-hmm. donc même bu ñu demee cour suprême ñu valider li nga xam ne moom lañ jëloon fële mënul am mënul am benn si carrière politique Barth a déjà purgé les 6 donc mënul ko xañ mandat maire muñu ko xam mandat député loolu loolu moo nekkoon au fait intérêt Barth di dem di si dialogue politique parce que il a arrivé à négocier les articles L29 L30 et ñaari articles yooyu rek ñoo mënoon a baare ki nga xam ne moom mooy Barth ñoom ñoo ko mënoon a indil ay problèmes politiques mais du moment que l'on parle verdict bi soit favorable ou non favorable à barte mënul am benn impact sur sa carrière politique c'est déjà réglé donc euh, nit ñi ba léegi dem ba léegi maa ngi dégg ñuy wax ni si la condamnation est définitive loolu c' était l' ancien code moom moo tax ne si la condamnation est définitive Barth ne pourra plus candidat parce que ainsi de suite ainsi de suite dañ koy retirer seen mandat sélectif mais avec le nouveau code là révision code électoral bi dafay permettre Barth moom loolu nga xam ne ay barrières la woon génne na ko si côté donc mooy tax may leen Barth il avait tout calculé donc euh, c'était ça en, en, en quelque sorte. <laughs> Euh, xam nga ban gis-gis nga am par rapport ak li Cheikh voilà euh, comme di euh, euh, Cheikh Diagne wax léegi peut-être foofu laay rebondir parce que ñi ngi fàttali ko bi ba bi Barthélemy mhm. di dem fa li nga xam ne moom moo ca dialogue bi lu nekk wax nañ ko ko surtout Yewwi Askan Wi di wax ni que Barth da jamono ji dafa nekk de mèche nga xam ne moom mooy président Macky Sall dañoo daal di réconcilier ak genre yooyu yëpp loolu yëpp waxal nañ ko ko mais comme comme comme ni mu waxee rek moom Barthélemy Dias ci boppam defoon na communication mhm. génnoon na wax bi muy wax moom nee euh, bi muy nekk yeewu askan wi n'était pas dans un mouvement de soutien nekk mhm. woon pour jàppale benn nit parce que euh, comme li ñu wax rek politicien euh, bu ñu nekkee boo demee ba sa intérêt nekkatul ci dara je pense que foofu noonu da nga fay da nga fay daal di jóge te loolu wane na ko dem ci ci ni mu demee ci li nga xam ne moom mooy dialogue politique bi tout comme ni Cheikh waxee négocier ba li nga xam ne moom mooy lii di procès bi nga xam ne nar nañ ko soliwaat décision bu fa mënti am day favorable ci ki nga xam ne moom mooy Barthélemy Diaz parce que moom fexe loolu mu loolu peut-être euh, dañ ko koy nangul c'est des ruses yoo xam ne def na ko peut-être pour pour génn wala fente lenn loo xam ne mënoon na ko tere tey jii bu amoon ay ambition politique wala mu am dara loo xam ne daf ko bëgg a def ci réew mi loolu euh, tere ko ko mais jamono ji euh, parlant de barte Barthélémy Diaz dafa am benn euh, lenn lu ma bëgg a euh, souligner parce que Barthélémy Diaz ñëpp gis nañu tout le temps moom mi ngi mi ngi ci langue politique comme ni Cheikh wax yàgg na ci parce que depuis parti socialiste ba léegi ñi ngi koy gis fi nga xam ni moom mooy Sénégal mu nekk jeune ba ni mu nekkee mag fi nga xam ne moom mooy Sénégal ñu koy gis ci langue politique bi mais on voit pas Barthélémy Diaz am mm-hmm. ay ambition politique yu mag loolu aussi seetlu la boo xam ne am nañ ko ci moom amul ay ambition politique yu mag peut-être mairie de moom mooy la seule chose bi nga xam ne peut nekk na benn poste bu xaw a kawe boo xam ne li kii di Barthélémy Diaz euh, taxaw na pour ut ko mais euh, gisuñu ko mu dem présidentielle gisuñu ko moom ay ambition yu mag a mag je sais pas pourquoi euh, peut-être euh, mën na mën na nekk benn explication peut-être Khalifa Sall la si la si sóoraale parce que Khalifa Sall mentoram la te Khalifa Sall aussi day dem à chaque fois présidentielle peut-être loolu la mais dañu seetlu ne kii di Barthélemy Barthélemy Diaz même bi mu nekkee biir Yewwi Askan Wi moom moom xëccoowul li nga xam ne moom mooy ndomboo tànk xëccoowul dara moom tout le temps moom il est derrière ki nga xam ne moom mooy Khalifa Sall Khalifa Sall lay jàppale loolu aussi peut-être euh, parfois mën nañ ko gis ñàkk ambition euh, ci ki nga xam ne moom mooy Barthélemy Dias wala peut-être il dafa am yeneen hmm. yeneen leneen loo xam ne daf koy motiver lu dul euh, li nga xam ne moom mooy motiver politiciens yu Sénégal di accéder ci yenn ndombo tànk yu kawe moom moom tout le temps il est peut-être dañ koy gis nag ci combat yi nga xam ni parfois peuple bi dañ koy soxla combat yi bu ñu defee kenn dara peut-être mu ñëw jàppale ko il est contre l'injustice ñëpp ne Barth c'est boo xam ne c'est une personne juste bëggul injustice mais jamais nga gis ko comme Khalifa Sall ak yeneen ñi mu mu mu mu laajte li nga xam ne moom mooy ay poste de responsabilité yu mag fi nga xam ni euh, moom mooy réew mi euh, lool la lool laa si bëggoon euh, souligner comme que dossier bi nag mi ngi en cours le 22 la ñu koy àtte incha allah ñu xaar le 22 rek xool lan mooy tukkee fa li nga xam ne moom mooy ci justice. doyen Cheikh. Mhm. gis naa la nga tagg Barth comme c'est un stratège mhm. kër kër. Mhm. ñi muy jàkkaarloo tamit boole ko ñoom xam lan la ñu am aussi ëppale de plus que ñële dañoo am doole am ay loi am ay instrument di ko utiliser nu mu leen neex parce que boo gisee dañuy def affaire yoo xam ne du am fenn ci monde bi xoolal un max mooy quelqu'un qui est introuvable ñu téye Karim seen loxo ñëw ne la Karim un contumax la juge ko kon Sonko dama jëm condamné benn xam nga mënoo ko expliquer fenn beneen bi Karim Wade. Mhm. on te dit que Karim Wade est gracié un gracié c'est quelqu'un qui est libre de parole et de mouvement en principe. Mhm. xam nga Khalifa est gracié il libre de parole pourquoi Karim ne l'est pas. Mhm. Karim tere nañ ko mu dem dëkku waajuram bu góor Sénégal tere nañ ko mu dem dëkku waajuram bu jigéen France tere nañ ko mu wax publiquement boole ko gracier la ba pare génn la réew mi. ñu bëgg na donc ça veut que du question ay parti dafa xarañ politique ñu ko gën a xarañ rek fi nekk mais problème bi gars yi dañu amul élégance li ñuy def et puis seetuñu ci dara et dañu am ay couturier juridique ku mel ni kii gis nga yoon xam nga Sénégal lan mooy suñu problème bu mag mooy mooy justice bi loi yi dafa leerul man dama wax gars yi dañoo jàngul wala dañoo doy waar. parce que du leer mukk chaque fois am nañ presse gis nga lii nga wax Barth nii di kërëb kërëb gis nga gars yi buñ ko bëggee faagaagal nañ ñaan yàlla ñu bañ ko faagaagal mais ñu ko bëggoon tegal nañ fi beneen contre loi boo xam ne après appliqué ko donc loolu mooy problème bi quoi du question ay Barth dafa xarañ ak ñi fii dañoo xarañ mais gis nga kuñ xalifa ku moo gën a xarañ Barth peut-être moo ko ëpp xadar mais carrière bi Khalifa def ak fi mu jaar Barth jaar fa sur le plan politique Barth na moo ko ëpp xadar gën ko kii waaw mais Khalifa dañ ko lijjanti ni mu leen ne Karim Wade Karim Wade ñeen ñoo ko wër bàyyam kan moo gën a xarañ ci politique ci ci ci Afrique bi mais bi ñuy bi ñuy tëral doomam mënu ci dara mhm. dañu boole politique ak yeneen yu ci bokkul donc ça veut dire que nañ ñaan xamal lan moo jar a ñaan Barth gars yi am bañ am beneen intention ci moom bu dul nuire ko bu ñu amee intention nuire ko ce qui est sûr il ne passera pas. Ah, donc loolu mooy problème bi ko vraiment oui voilà euh, ci lu doyen wax peut-être c'est une question bu ma koy poser est-ce que du euh, le fait que euh, Barthélémy li ma doon li ma doon souligner sànq le fait qu'il na du du laajte li nga xam ni moom mooy yenn post yu maanaam lu jëm ci ay présidentielles yu demee noonu est-ce que du loolu moom moo tax à chaque fois mu rëcc ci yenn yi. waaw peut peut-être loolu aussi mën na nekk parce que seen poste bi xam nga dañ ne kii nu mu tuddati fauteuil présidentiel mais waxuñu canapé présidentiel donc benn nit a toog te ñi ci toog ba pare pour ñu fexe ba nga ba keneen ñëw fii parce que rien n'est sûr gis nga même xalifa ak Karim yi dialogue nañu bu leen neexee suba ñu revenir ci li ñu wax wala tout wut ay yi ba Karim ak Khalifa duñu bokk bu leen neexee. donc ça veut dire que Barth aussi mën na bu xalifa bokkul woon Barth day jéem nekk candidat donc ça veut dire que fi mu toll nii yooyu yëpp mi ngi ci quoi te ñoom bu ñu yortee ne Barth mën na nekk candidat aussi mën nañ ko commencer fagaagal wala ñu koy wutal ay pexe ak yooyu donc ça veut dire que ce pays là la gis moom politique Sénégal bis boo ko comprendre ça veut dire on te l'a très mal expliqué elle n'obéit à aucune logique aucun principe elle fonctionne par rapport à sa dynamique propre gis nga boo jàngoon science politique boo këyit yi nag Sorbonne yëpp ba maîtrise ko boo ñëw fii Sénégal gars yi da da da lay jaaxal tubaab bi dañu am problème pour analyser suñu politique ba teguwul fenn ñi ñi nekk xaritoo démb ñoon boo gisee Mimi Touré ak Sonko ni ñu mel ba muy dugg ay avion di dem di ko kan moo la ko mënoon wax ainsi de suite Habib Sy ak Sonko Sonko anti système ab Ablaye Wade dañ ko war a fusillé après nga wëlbatu ko bi nga jaaxle jël sa téléphone woo sa ab Ablaye Wade ne ko nan laay def bu mu dimbali ma moom moo ko waxal boobam man waxuma ko moom moo taxaw ne reconnaître bi mu nekkee ci jafe-jafe yi en 2021 il a appelé Ablaye Wade Ablaye Wade jox ko stratégie loolu ko ci dimbali mu génn ci donc ça veut dire que fi mu toll nii Cheikh bëgg nga xaw ma da koo bëgg xaw ma da gi koo kii waaye Barth wax dëgg yàlla. <laughs> gars yi ñaan yàlla gars yi bañ ko kii rek. c'est pour euh, et répondre à la question de Rama et apporter des éclaircissements par rapport à doyen. en mm-hmm. fait c'est extrêmement important li mu wax mu ne Barth boo gisee lu tax état du ko créer problème parce que amul ay ambition yoo xam ne c'est des ambitions présidentielles évidemment c'est tout à fait normal parce que état du ma ne Barth <laughs> génie politique la xam naa peut-être waxuma en face génie avec l'état du Sénégal mais au fait état xam na ne Barth du menace boo xam ne peut-être du menace imminente pour moom moo tax créé lul benn problème mais bu ko wóoroon ne Barth mën na ko indil benn problème sur la présidentielle de 2024 mm-hmm. ils vont tout faire ba nga xam ne Barth du bokk loolu ñun ñëpp xam nañ ko loolu même ñu mm-hmm. bàyyee Barth mu participer si li nga xam ne moom mooy dialogue politique bay am ay euh, accords yoo xam ne modification article 29 article L30 loolu état la neex parce que bu ko neexul woon duñ modifier article yooyu Khalifa Sall tëj ñu ko fii si si en rapport avec les articles L29 l moom lañ modifié pour ki nga xam ne Barth bañ see tombé parce que xam nañ ne Barth du menace imminente Barth il a déjà dit moom wax na ne. élection yi di ñëw du nekk candidat parce que son mentor mooy ko mooy Khalifa Sall moom mooy Khalifa day âgé day dépassé li nga xam ne moom mooy âge normal bi pour mën a nekk candidat donc Khalifa il est out pour la présidentielle de 2029 et Barth quoi qu'on puisse dire il est loyal envers son mentor mhm. ñëpp Khalifa Sall lañ ko xameel mhm. xeex bi méttoon na fi loolu parti socialiste ñëpp métti fi ñoom ñaar ñoo génn dem ànd moment boobu Ousmane Tanor Dieng moo donc vous voyez que il est loyal envers Khalifa Sall et tant que Khalifa moo ngi fi war a mën a nekk candidat Barth du nekk candidat et Khalifa tout comme Barth du sous-estimer Khalifa mais état xam na ne xalifa tamit nekkul menace boo xam ne peut-être man nag indi benn problème ci présidentielle bii di ñëw parce que Khalifa il a perdu de choses sa condamnation daf ko fi daf ko fi perdal lu bare bare bare bari maillage yi mu waroon def au niveau du territoire national bu fekkoon Khalifa 2019 ba léegi wala ba mu génnee PS ba léegi moo ngi def ay tournée ni mu ko war a defee comme ni ko politiciens yi di war a defee ñoom Ousmane Sonko doon ko def ñoom Idrissa Seck doon ko def dégg nañ Khalifa fu gën a fii nii mais mhm. Khalifa xam nañ ne carrière politique am emprisonnement bi def si lii lu baree baree baree baree. voilà euh, une question balaa euh, est-ce que kon euh, parfois on se pose des questions sur Barth parce que la la relation entre Barthélémy Dias et Khalifa Sall dafa bëri ay questionnement yu nekk ci biir est-ce que tey jii nii comme comme li nga wax ne carrière politique boo bu Khalifa Sall li nga xam ne moom mooy emprisonnement bi daf ci wàññi lu mhm. bëri est-ce que parfois est-ce que parfois tamit politique parfois peut li nga xam ne moom mooy affaire yi est-ce que tey ñu jëloon Barth taxawu Dakar Niass au détriment de Khalifa Sall pour mu dem euh, présidentielle est-ce gënul woon ci ñoom. bien sûr waxuma la taxaw Dakar mais même taxawu Sénégal bu ñu nga defoon xam nañ ne moo gën ci ñoom parce que en fait partisan taxawu Sénégal yu bare bare bare bare ñoom bart moo jiite leen moo leen gënal nga xalifa Sall jiite leen parce que. si Barth la ñuy gën a gis seen bopp à travers saa fougue à travers la résistance wala Barth nu muy nu muy manager voilà si lañ gën a gis seen bopp ko Khalifa xalifa dafa nekk koo xam ne en fait il est quelqu'un de très calme peut-être xam naa li mu yàgg si politique bi moo tax mais bon il n'est pas radical entre guillemets parce que Barth est radical mais mm-hmm. am na ay limites mais Khalifa en fait pour nga dégg Khalifa sax c'est tout un problème euh, campagne bi daanaka ba mu ba je dirais pas campagne mais parrainage yi ba mu commencé ba léegi rarement ngay dégg Khalifa tout comme Idrissa Seck boo waxee ñu ne la c'est des stratégies stratégie politique lan Sénégal dañ moo mel noonu ñoom nañuy dégg koo xam ne chaque jour il o au diapason di wax ak ñoom di nekk si ñoom kooku la ñuy jox bët mais yow koo xam ne même bu fekkee da def dara da que Khalifa politique bi nga xam moom lay mëne ba c'est je dirais pas que c'est révolu mais Sénégal yi dépassé nañ foofu léegi génération bi fi nekk nii boo leen bëggee convaincre si li nga xam ne moom mooy politique il faut nga indi yeneen stratégie yu bees il faut nga indi yeneen moyens de communication yu bees pour mën di wax ak ñoom mais ñoom gis nañ ni seen communication à travers le digital dafa des boo xoolee taxaw Sénégal gis mm-hmm. nañ ne communication xalifa dafa des ainsi de suite ainsi de suite donc loolu yëpp dafa nekk loo xam ne ay points négatifs la yoo xam ne pour ñu pour pour mu génne leen si c'est tout à fait difficile. Mm-hmm. Mm-hmm. c'est c'est bon a ngi si seen émission bët set sur votre chaîne préférée di Evidence TV ñu ngi leen di ziaraat ci àjjuma ji bu baax a baax di sàkkuwaat si yéen ñaan ñu ngi leen di ñaanal aussi jàmm euh, doyen on va parler de religion la solidarité